الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax Eh, di jël nuyoo nag di ko jagleel imaam Thierno Hamidou di ko jagleel waa gox bi yëpp macha allah eh, di ci settiit ñi nga xamante ne ñu ngi daan ànd jamono bu ne ci seen tafsirul Qur'an fii ci jumaa ji macha allah eh, ni ñu ko daan baaxe fi ñu daan toog nii lañu daan toog mbokk yi toog ñu àndandoo ñun ñëpp di nafar téere yàlla bi ñoom daanaka ñoom la ñuy bàyyi xel ndax daara ji maam macha allah ay nit ñu baax ñoo fi ne ñu bëgg xam-xam moo taxit ñu ne daal comme yàlla may nañu possibilité yi nañu fexe ñëw incha allahu rabbi di jiim di ñap ña bi rek di leen defal seen tafsirul quran di nuyu bu baax ñi nga xamante ne ñu ngi koy coordonné jamono bu ne yàlla na yàlla fayal ñu leen yéen ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi di ñaan yàlla mbas mi fi ne yal nu ko yàlla dàqal te am nañu ci yaakaar ndax alquranul karim ndax ni ñu koy defee fii béréb yu baree bari noonu lañu koy defee di jàng alquran di def ay waxtaan euh, ala kulli xaalin noonu rek la suñu ko defee di moytu ndaku yàlla mën nañu dimbali waaw ñu beñ ne nekk ñoo xam ne daal dañuy radical wala benn bi déedéet diine diine ju yomb diine jàppandil la mbas moo am su ko defee yii yëpp baax na jàkka yi ñu ngi fiy nodd ka fay nodd bu paree mox ka mu fa nekkal ñaar la ñett ñu nga fay julli donte le mbooloo mii daan am si gox yi amatul waaye loolu rek la mooy ta ndaku yal yàlla defal tawfiq tey incha allah si seen tafsir eh, am na programme bu ñu doon jël waaye nga xamante ne dafa am beneen programme bu ñuy dugal en même temps ci ay waxtaan tey nag ñu delluwaat di leen indil li nga xamante ne mooy fatihatul kitab ndax saar la woo xamante nii matale na lépp moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne léppi alquran mu ngi ci biir fatihatul kitab muy asabul masani muy juróom-ñaari aaya yi nga xamante ne dafay répété wu dañ koy jàng miraaran ay yoon yoon kuy julli moom ngay jàng ñépp ko mokkal fatiha kon mokkal boobu nga xamante ne mën nañ ko ci làmmiñ ñi mën a ci dënn yi noonu lañ ko war a mën a mokkale ba di ko jëfee lu ciy digle ñu dem ci lu ciy tere ñu moytu ndoku ko kon fatihatul kitab bari na ay tur te lu bari ay tuur rek day wane màggaayam day wane njariñam dana tudd alwaafiya dana tudd alkaafiya comme ni mu tudde fatiha ak yeneeni tuur kon moom matale na ci lépp moom doy na ci lépp moo tax boroom xam-xam yi ne moom rek bu wàcc woon doy na ak yeneen saar yuñ ko wax tamit kon fatihatul kitab dafa séddale ko ci ñett waaye lu jiitu kon nga xam ne moom ci wuute borom xam-xam yi ci gisin ñii dañ ne Makka la wàccee ñii ne Madina la wàcce mu am ñeneen ñu ne dafa wàcc ñaari yoon dafa wàcc Makkatal Mukarrama bi julli ñëwee mu wàcc wat medin ba nga xamante ne ëlbati nañu xibla bi maanaa ci fi ngay dégg ñu naan masjidul xiblatayni ñu ne foofa it mu wàcciwaat kon yooyu yëpp ay riwaayaat la te loolu it bu amee li mu lay wan mooy màggaayu saar bi nga xamante ne mooy fatixatil kitab kon dañu ñëw ci loolu wan la ne la faatixa doy na lépp alkaafiya alwaafiya yonente bi saa salaam doon na wax saxaaba yi doy na leen ci lépp bépp aajo bu ngeen ci jublu am saxaaba yu génnoon am ku jaan mat ci faatixa bi lañu ko luggee ba xattaa suñu réew mi ci mag ñiit borom xam-xam yi ñu baree bari danañ ci liggéey ci faatixatul kitaab looy def même bu amul bismillahi rahmaani rahim yonente bi ne loolu day barke du ci am te basmala mu ngi ci biir faatixatul kitaab ñeenti dex yay dawal ëllëg aljana yonente bi ba mu demee isra wal mi'raj wan nañ ko ko muy bismillahi rahmaani bii mu ngi balle ci baawu bismi baa boobu fi dexu ndox gi di balle allah bismillahi haabi dexu lem gi foofu lay balle arrahmani miim gi ci rahmaan dexu soow gi foofu lay balle wala dexu meew arrahimi miim gi mujje dexu sàngara bi foofu lay bale muy ñeenti dex yooyu nga xamante ne moom la yàlla di terale gan yi ëllëg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne jàng nga ko rek benn yoon mu sell ci yow dëggu ci yow yàlla dana la nàndal ëllëg ci dexi aljana yooyu le yàlla na nu ko yàlla defal defal leen ko kon gis nga ngëneel yooyu yàlla dem ba defal loolu kon xam nga ne bon bismillahi rahmaani rahim am na solo xataa yenn borom xam-xam yi di la wax ne la même baa bi rek mën nañ ci def loo xam ne boo ko doon sëf si ay gëléem duñ ko àntal ndax barke bu saar wi am fatihatul kitab mbokk yi bari na ay njariñ lim yi nag xëj na waxtu yi duñ ci mën ñëw pour lim sàngam boo ko defee waaye daal na ngeen ko saxoo di ko def bari na ay lim juróom-ñaari ma wax rek yu gën a gàtt juróom-ñaari baax na fukk ak benn baax na fukk ak ñaar ñaar fukk ak benn téeméer ak fukk ak benn muy cent onze yooyu yëpp ci basmala gis nga même nit buñ koy ñaanal ramm ci boroomam dañ naan ñu defal ko fidaawu bokk na ci yii gën a siiw ci fidaawu mooy bismillahi rahmaani rahim te loolu ci biir fatiha la ne kon fatiha mbokk yi yonente bi ne julli gu amul fatiha julli gi du baax mu ne fu ñu looy def boo jàngul fatiha wala boog boo jàngul basmala seytaane dafay participer si li ngay def looy def boo jàngul basmala du am barke kon loolu daf lay wan ne la mbokk yi fatiha am na njariñ lool gis nga benn aaya boobu di bismillahi ni mu amee solo lool ci ay njariñ yoo xamante ne kenn mënu ko lim kon nga xam ne bon fatiha macha allah kon muy bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim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 bismillahi maa ngi sàkku kantan ci nga xamante ne moom mooy borom bi muy allah muy turam wi nga xamante ne mooy ismu zaat muy allah moo tax nga ne bismillahi kon la yéefari doon wax yonente bi ne ko suñu soxla yi bari na fajowul yàlla yi bari nañ fi lool nga bëgg ne benn moo fi am aha kay benn boobu mooy faj soxla yëpp mooy allahu azza wa kon nga ne bismillahi maa ngi tàmbalee ci tur yàlla sooy lekk waxul waxal bismillah booy lekk bul ne bon appétit neel bismillahi sooy sol sa yére nel bismillahi sooy sol sa dàll nel bismillahi sooy yëg sa oto neel bismillahi sooy dugg sa kër sooy génn sooy toog sooy looy def neel bismillahi boo ko saxoo loolu seytaane moom lépp looy def dootu ci am benn wàll moom seytaane sax moo njëkk a wax loolu mu ne dinaa fexe ba ngeen fàtte tudd boobu la di bismillahi mu ne ndax fu ngeen ko tudd rek amatuma fa place kon nag de leen ko bàyyi xel arrahman arrahim muy ñaari tur yoo xam ne daanaka ñoo bokk maana arrahman ki nga xamante ne moom mooy yërëm mooy borom yërmande ji ci àddina bi yëpp arrahman ëmb na ñépp ku gëm gëmul jën njanaaw rab àll lu mu mën a doon arrahman mooy li nga xamante ne moom moo fa ne arrahim di yërmande ba nga xamante ne nag xaasa ñeel julli di nag xaasa ñeel julli di ëllëg yowma alqiyaama muy arrahim mooy borom yërmande ji moom borom bi subhanahu wa kon alhamdu mboolem xeeti cant yi lillahi ñel na yàlla rabbil aalamiina buuru mbindeef yépp nag rabb mooy kiy yar rabb mooy ki nga xamante ne moom mooy yar comme da ngay gis kër même ñu ne la rabbu daar borom kër gi kooku mooy rabb kooku yàlla rek moom subhaanahu wa taala moom moom mbindeef yépp rabb al univers bi yépp suñu borom bi subhanahu wa taala mooy ki nga xamante ne moo ko moom mooy ki ko bind moo koy saytu tamit mooy rabbul alamin te ku si ne it xam na fan la lay orienté fan la la teg ban position nga ne fan nga nekk lan ngay def kooku mooy rabb mbokk yi rabbil alamin arrahman arrahim comme niñ ko tudde san borom boobu di rabb di rahman di rahim di yërëm àddina bi yépp waaye di yërëm jullit yi àllak yowm alqiyaam maaliki baax na maliki baax na maaliki nag moom la borom xam-xam yéen wax ne moo gën a matale ndax mooy kii moom lépp maaliki yowmi diin ba penc lépp nag maalik la moom borom bi subhanahu wa taala moom moom lépp lu fa ne ku moom dara ñu ne mooy maalik kon doom aadama mën na moom lii du moom la neen waaye yàlla moom mooy maaliki moom moom lépp moom borom bi subhanahu wa taala kon lan nga koy wax nga ne ko iyaaka budu wa iyaaka nastain kon muy bu ñaareel bi fële sant nga yàlla kañ nga ko bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin kon yaa doon kañ yàlla di ko glorifier moom borom bi subhanahu wa taala ci turam yu sella yooyu le ak li nga xamante ne moom moo koy saytul boppam boo ko waxee loolu ba noppi nag nga ne ko yow borom boobule iyaaka yow kot iyaaka yow dong amul kaneen naabudu julli yi aji yi saraxe yi dimbalinte dox mbokk gi teral wayjur yi toppatoo njërim yi toppatoo nangamax nangamax nangam delloo àq yi iyaaka naabudu lépp lu jëm ci jaamu yàlla duñ ko defal kenn ku dul yow iyaaka yow kot yow dong yow rek lañ koy defal kon yow yàlla summeeku nañ ci lépp luy bokkaale yow rek yow yaa fi ne naa abudu yow rek waaye tamit ndimbalit léeg-léeg ñu soxla ko de yow yàlla waaye wa iyaaka yawit ci yow dong dong képp amul kaneen lu nit am xam-xam nit am kantan nastainu ci yow la ñuy sàkkoo am ndimbali yow yàlla subhanahu wa taala donte le nit mën nañu dimbali ñu nela la ko jërëjëf donte le nit wax nañ dem si diw mu dimbali la nga ne ko jërëjëf waaye yow yàlla loolu lépp xam nañ sa ndimbal la kon iyaaka naabudu wa iyaaka nastain kon lépp lu jëm ci lu ñuy màndargaal ne am na ku ñuy defal dara di ko lu yow yàlla amul kenn ku dul yow iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kon nag yow yàlla yow la ñuy jaamu yow rek yow yaafine fi ne ñu ngi lay ñaan mooy ñetteelu tomb bi ci fatiha mooy na iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين naka yow yàlla ihdina siratal mustaqim yàlla nga ñu teg ci yoonu njub siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim moo xam yonente la moo xam waliyu moo xam nit ku baax la moo xam ku ñu yëg martabaam la wala ku ñu yëgul martabaam ñépp ñu baax ihdina sirata al mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ñooñu la ñu soxla nga teg ñu ci yoon woowu yàlla orienté ñu foofu lañ bëgg ñun muy sirata al mustaqim min annabiyin wa siddiqina wa shuhada wa saliqin yàlla ñooñu lañ bëgg a nekkal ñooñu lañ bëgg a àndal gayri al mahdubi alayhim ñi nga xamante ne rek da nga leen mere muy yahuud seen jëf ju ñaaw yàlla képp képp koo xam ne yaa ngi méngoo ak ñoom yàlla soxlaaw ñu loolu de wala doolin du càggin way réer ñi muy nasaraan yi kon daal yàlla ñu ngi lay ñaan nga teg ñu si siraatal mustaqim kon yoon woowu yal nañu ko yàlla defal yal nañu yàlla dëgëral yal nañu yàlla teg si siraatal mustaqim te maa ngi leen di ñaax nañuy góorgóorlu di jàng fatiha mbokk yi nañu koy jël bu baax ndax fatiha ngëneelu kase la fatiha daal dara melul ni moom kon nag di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla defal tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu